fallu doo xawaare daf samak jaam se ku bëgg sëriñ fallu defal ni nu magal galas baay me gor nga doo xawaare waaw kay siidi fallu tuuba uf jumaay tuuba siidi fallu tuuba uf jumaay tuuba loxo ca kaw siidi fallu tuuba ana soppay baay mbeen siidi fallu tuuba uf jumaay tuuba kaaba gaa nga tuuba jam ñi di siyaare siidi fallu tuuba am de loolu mooma leer kaaba gaa tuuba ku maggal Sëñ Fallu am xéewal kaaba gaa tuuba jangi di siyaare ana soppay galas baay mbel kaaba kaaba gaa tuuba jangi di siyaare tuuba ñi waxoon jumay tuuba li du sotti sottiwaat loxo ca kaw ñi waxoon jumaay Tuuba lii du sottiwaat loxo ca kaw ñi waxoon jumaay Tuuba lii du sottiwaat nan ko xaare waaji ne ko kay siyaare ñi na woon ji lii du nan ko xaare na nan ko xaare waaji ne ko kay siyaare ana soppay masalikul jinan ñëw na dan ko xaare waaji ma ni ku bëgg masalikul jinan dugal taxa jega ñu magal masalikul jinan masalikul jinan ñëw na dan ko xaare waaji masalikul jinan ñëw na dan ko xaare ana soppay masalikul jinan ñëw na dan ko xaare waaji masalikul jinan ñëw na dan ko xaare ana soppay masalikul jinan ñëw na dan ko xaare waaji masalikul jinan ñëw na dan ko xaare waaji ku bëgg masaliku defal mi ndax nan ko xaare waaji ana sa tay masalikul ji nan ñëw na nan ko xaare waaji nan ko kay siyaare masalikul ji nan ñëw na nan ko xaare waaji nan ko kay siyaare ne ko kay siyaare jërëjëf yàlla na yàlla na ñëpp am jàmm jàmm mbooloo mi yàlla na ñëpp am jàmm yàlla na ñëpp am jàmm yomb na yàlla te moo koy yàlla na ko defal ñun ñëpp